ay ca jërëjëf mbokk yi générique bi départ na euh, jàngat làmb tàmbali na bàyyi jiili ak Père Birahim Ndiaye comme ni leen koy defalee ci saa su ne euh, fii ci wasaare làmb mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen nuyuwaat bu baax a baax a baax di leen jaajëfal euh, di nuyu ñi nga xamante ni suñuy mbokk lañ nekk ci réew mi ak bitim réew fii waaye mën a nekk rek ñu leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax a baax jàngat làmb na Père Birahim maa lay nuyu bu baax a baax a baax. waaw ah, jërëjëf rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu maa ngi nuyu mbooloo mi nga xam ne ñu ngi safoo site bi tudd Wassare Lamb mm. di ko seetaan safoo lool neex leen ñu di ko bëggee ñun tamit ñu ngi leen di bëggee mm. maa ngi leen nuyu di leen sant di ñaan sama kàddu yàlla na daal def kaddu gi fekk leen ci jàmm may leen wér mbas mi ne ci Sénégal ci monde bi yàlla na ko fi yàlla jële mm. te may ñu jàmm may ko réew yëpp ci monde bi yëpp barakatu rasulallah mu jël nuyoo bi nag Ah, di ko teg ci sa loxo rek nga teg ci loxo ba ci nga nuyul ma ñëpp. waaw man yeeg ñëpp maa ngi nuyu xale yi ñoom Adama ak ñëpp bàyyiwuma kenn. Mm-hmm. Ah, di ñaan daal di kontaanati ci yow dajawaat ak yow tey. Mm-hmm. bisimilah. père ñuy masaw bu baax a baax a baax ñi nga xamante ni ndox ndox mi dafa nangu seen kër. Mm-hmm. ku ci mel ni suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo dëkk Kër Massar. Ah, di leen masaw bu baax a baax ndax ndox mi bari na trop père. waaw kër ma Massar googu. Euh, war nañ leen a masawu bu baax a baax waaye tamit euh, xam nga nit dina dugg ci lu mu xamul. Mhm. Kër ma Massar googu ngay wax tey jii ma taxaw sa wet nii. Mhm. Euh, Laat Ndiaye Jama moo jur Semu Semu ma jur. Mhm. maam Maalim Mbengue Ndoye ak maam Balla Ndoye bokk ndey ak baay bokk ak sama maam Laat Ndiaye benn ndey. Jama jaanee seen yaay. kon tey Kër saar xam nga ne saf naa fa sap. boo demee Njóobeen fa laa bokk boo demee Njaayeen fa laa bokk boo demee Ndoyeen fa bokk. siyeur yi tamit falaa bokk mooy ñi sant si mooy Amady si ak Ali si mm-hmm. ñoo bokk ndey ak baay kenn ki doomam sama ñi sama baay bokkal benn ndey bu leen jur mm-hmm. ak ay doom ñoo bokk benn ndey mm-hmm. sa baay mooy baay Ali si moo jur sa mbañik si ak Arouna si kon Kër Massar ak Buun ak ñooñu samay dëkk lañu gis nga foofu ñu dëkk tey ji ay da daan am ay jën ay waas la dañ fa daan napp ay waas di fa napp ay colère di fa napp ay ay nër moom fi euh, ndox mi nekk nii. waaw waaw. Mm-hmm. ay tolloon am na ci foo xam ne boo tourné ñëw ba ci euh, ba ci euh, kii bi di kii bi nu mu tëddi station sel bi. Mm-hmm. nga tourné jëm Malika boo ñëwee ba ci hôpital bi foofu sama tool maam la sama mm-hmm. maam Latta moom moomoon foofu ñu di ko wax am am tëng tool yi am tëng la tudd. ci suuf moo tudd dex ku mag. nga dem ba ci booru ba ba yéeg montagne ba foofu moo tudd xeer sa xerub kër. sama tool yi maam la mm. kon tey mën naa fa wax cosaan lu bari loo xam ne ñuy seetaan mm. ku dëkk biir Kër Massar xam ne li ma wax téere laa la wax daal du ci léegi mm. bay nañ fa ceeb bay nañ fa mboq bay nañ fa lu ne man mi naa fa mboq wattu naa fa jo def naa fa lu ne waaw ma ma deel massa xam nga nag nit bu dëkkee foo xam ne xamu ko dégg li ma la bon sécheresse bi ñëw na maa ngi dee àll bi wow na ñu dag koy kër mais kër yi ba ñu ko waroon dëkk nag gouvernement da ko da waroon na tem assainissement bi ba pare. Hmm. tiwo ndax te yoon yi tiwo yi defar ko fa ndox bu ñuy am fu mu jaar xalaatuñ ko woon. Hmm. looloo tax nag moo tax ndox ñu du bàyyi yoonam. Hmm. moo tax ndox mi ñëw nanguwaat place yi. dégg nga ñu gën a gis bâtiment bu rafet barax ba màgg ba sut ko. nga xam ne fii dër la woon dañ fi bay ay pataas di fa bay ay supome di fa bay lu nekk. loolu nag moo ñëwaat nii quoi. bu naataa nga ñëwee rek ndox feeñ. te naataange dafa ñëwaat nag. Hmm. waaw loolu nag yàlla na yàlla teggi leen ko jàmm. Ah, ñu dellu gouvernement bi bàyyi leen xel rek. Hmm. xam ne ñii kat dëkk nañu foo xam ne fii ah, coono bu metti la. Hmm. waaw parce que dëkk foo xam ne fii boo booy dugg da xuus. ak am kër ni mu jafe ak tabax kër ni mu jafe. nga defar ba pare ñëw nar koo ñàkk noonu comme ndox loolu metti metti na metti na benn parenthèse la woon rek mm. bu ñu leen ah. indi loon euh, mm. Baye Djili ak Père Birahim ñu ci doon masawu képp koo xamante ni mm. euh, dëkk nga Kër Massar wala fépp waaye mën a dëkk rek te ndox mi nangu sa kër ñu lay masawu baax baax baax Père tey ñu ñëw ci combat boo xamante ni euh, ñaari xale lañ kii doon doomi Bawol kii doon doomi Pikine mu doon combat boo xamante ni TNT daanaka mun naa ne moo leen boole woon. Hmm. mu dox ci diggante Ama Balde. Hmm. ak ki nga xamante ne mooy Tapha Tine. Hmm. Euh, tey combat boobu laa fas yéene indi pour ñu jàngat ko. nga xool combat bi Tapha Tine ban erreur la ci def. ba daanu Ama Balde nan la ci def ba am ci ndam. komba boobu loo mu ci mën a wax. waaw combat boobu bi mu taxawee. Euh, ñu bari amoon nañ yaakaar jox favori euh, Tapha Tine. waaye xam nga olof dafa am lu mu lax dafa ne garab ci kaw lay fekkati dëgg la ñu ne mbër la day màgg daan mhm. loolu olof wax olof la ñu dégg olof yéen ñi xale xëy na du ngeen xam loolu waaye mbër du la day màgg daan mhm. olof la dégg nga garab ci kaw lay fekkan tamit loolu ay olof la maanaam moom tafaatin mhm. moo suñ moom moo doon favori bi waaye li mu doon doon favori yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp tey am na lu mu waroon a ci ci Ama Baldé parce que Ama Baldé exploit bi mu def an yi ñoom euh, Malick Niang ba ci ñoo ñëpp ba ci ñëw noonu war ngaa xam ne xale bi dégg nga ni mu ni mu ni mu doomi mbër dëgg la. Mm-hmm. boo xamee Balaye Baldé ñun ñi nga xam ne Balayeem sunu père la woon ñun ñii mm-hmm. parce que moo ñu mag fuuf. Mm-hmm. xam nañ mën a jur. dégg nga li ma wax seetaan ko ci jamonoom ku muy bëreel da ngay xool nu mu lay daane. waaye doo xool noo koy daane. loolu Balaye Baldé toll woon na fa. te Falaye Baldé boo xoolee doom ji xool photo bi rek nga xam ne kii doom doom ji jur na bàyyi ba jur na doomam. Mm. jur mm. ko xool xam ne roi des arènes. Mm. mérité na xoolee xam ne taay bi ko yàlla jox. dégg nga ak ni gabar bi ko yàlla jox ci làmb kooku tey ji mën naa nekk lu nekk ci làmb ji. dëgg waaye nag loolu dafa am lu koy complété nag. xam nga lu koy complété. mooy ngay wut xam-xam nag yokk ci sa kattan. kattan rek doy doyul. kattan nag mooy base bi. mooy base mooy base bu bëri. am taay ba pare am doole. am fit kooku mooy base bi. Hmm. mooy fondation batiment bi. waaye nag day fekk na nga am xam-xam. xam-xam nag des koy wuti. Hmm. nangu li ma wax wala nangu naa xam-xam dañ lépp hmm. laa xam. ma taxaw nii sawet nii. ngay sama doom am loo xam te xaw ma ko. mais am na lu ma xam te xaw ma seetaan nii tey ji am na xam te ñun xamuñu ko. waaye bu ma ko wutee am ko. boo wutee ko rek am ko moo loolu dafa feeñ ci biir bëre bi nag. parce que kenn ki fu tafaatin xool nag xam na ne kii maa ko su dëpp ko xam naa bu ma ko jàppee rek bëre bi jeex. mais wutul nu ma ko jàppee nag. xëy na bu ñu demee ci analyse bi daa war na booy bëggee jàpp mbër moo su tiim ko nan ngay def pour jàpp ko kon nañ leen dem ah. xool ci analyse bi boo bëggee jàpp mbër moo xamante ne dalaa sut ëpp la nan ngay def ba daan boo xam ne koo xam ne yaa ko sut ëpp ko yaa ko sut ëpp noo ko war a jàppee noo ko war a jàppee waaw jërëjëf Père Birahim waaw ay ca kaay leen Tapha Tine moo la féete ndijoor Ama Baldé moo la féete càmmoñ woon la ginnaaw waaw arbitre bi sifflé na mhm. ñoom ñaar ku ci nekk mhm. Ama Baldé mu ngi jiital tànk ndijoor mhm. tànk ndijoor moom wax nga importance bi mu am ci làmb très bien Euh, Tapha Tine jiital na tànk càmmoñ. Mhm, kon combat bi mën naa ne daanaka Ama Baldé la gën a jublu ka Tapha Tine. très bien la kon leçon yi ma jox mu ngi dugg de. mu ngi du baax mu ngi baax ba. ay dem kon may ma nag ma ñëw foofu bala ngaa démarre. waaw xam nga loolu wax nga ko ba pare kon xam nga léegi foofu leer na. leer na waaye nag ci commencement bi ni ñu taxawee nii. Mhm. Tapha Tine euh, Ama Baldé mii. Mhm. taxawaay bu baax la mais Tapha mii ni mu taxawee. donc mu mën a buy song. mbër muy riñaan mooy jam góos ñëw da ngay taxaw jonn mbër bu ma nee riñaan day siggi taxaw waaye nii moo songoo ba pare taxaw nii jonn taxawaay bee baaxul te ñaar tànk yi dañoo jegeñee dañoo jegante voilà te gis nga kii dafa dër mhm. gis nga ni mu dëree mhm. ki dër toujours taxaw ki dër moo gën a taxaw ki defee nii la comprendre nga mhm. ki taxaw ñaar tànk taxee nii dafa tegu dëgg la tegu ak ak taxaw dudul benn ki dër nag dafa teg dafa taxaw maanaam daf bu dëree rek maanaam sa taxawaay baax na parce que da nga appuyé lem les jambes lemu tànk yi dem boo maanaam boo taxawee nii boo lambee nii da ngay gis tànk yi day nooy nepp waaye boo defee nii da ngay gis cuisse yi day dëgër këcc nga xam ne taxawaay bi dëgër dëgg la voilà taxawaayu kii ba tey des na kii moo gën a baax taxawaay muy Ama Baldé ñu dem ay ca ñu dem mhm. Mhm. Mhm. ñu ngay lewaatoo di xoolante ci bët di xoolante ci bët Ama Baldé dañ koy xool Tapha Tine dañ koy xool dëgg la ñu ngay lewaatoo ñu ngay lewaatoo ñu ngi lewtoo fi mu toll nii ñoom ñaar ku ci nekk nii la war a def. déedéet mais fii. Hmm. ama tafatin hmm. su fekkee ne point bu nekk si man la. Hmm. du ma balancer les bras damay fermer sama garde. taxaw daa goos bi. laay aj wàcce droite bi xuus ci kawam diri ko ci kawam. da ngay ko ci kawam rek. mais balancement de bras bi cokkaasante bi sax du woon yoon. xam nga nooy def. aj garde gauche bi wàcce bi doo diri ko ci kawam. garde bi fi nga koy rek maanaam da ngay ko rek doo dox. dox ak diri ko ba tey du benn. lan mooy dox ak diriir dox mooy sa tànk di jóg ngay teg. Hmm. diriir ko nag mooy ngay war a tànk yi. ngay kon leer na. Hmm. de raam oom a koy def. déedéet raam. ay oom a koy def. mooy nga sukk di raam. <laughs> kooku mooy raam. waaye bu dee su bu dee diriku. sa tànk da nga koy watat. di ko diri da koy diri rek aj garde bi rek dox ci kawam. rek fermer rek fermer ci kaw fermer ci suuf maanaam doo taxaw ba ne jonn doo wàcc ba suuf mais da ngay dagg taxawaay bi. tabaat li waroon dagg taxawaay bi. Hmm. dagg taxawaay bi nii aj garde bi ci kanamam. bu dee bëri rek mu taal arrêt de gauche am régressé wu droite bi. parce que bu tee droite bi bu tee gauche bi ci droite bi la koy lale jàpp ko. waaw bu ñu jàppante woon nag bëri bi du du gaaw a demee noonu. du gaaw a demee noonu loolu nag moom loolu nag la Tapha Tine deful moo tax Tapha bi kii teg waxoon naa la ko fi. saa yoo dajee kuy teg droite yow ngay teg gauche. parce que ñi ngay teg ñi ngay bëri ñu teg gauche loolu moo ëpp. ñooñu moom moo tax toujours gauche moo lay gën a jubu. gauche yow moo lay gën a jubu. moo tax gis ba Ama Baldé bëri bi moo gën a jubu ci moom. dëgg la ñu dem. ayca ñu dem. Mhm. gis nga ko. Hmm. waaw. Ama Baldé ngi noonu di leetoo. waaw di leetoo rek xool. voilà te yurndu wàcce di dem ba tey Tapha Tine jànn rek gis na mu taxaw ne jonn nii. mais per est-ce que yoon la Ama Baldé jël combat bi ba euh, Tapha Tine jël combat bàyyi koog Ama muy diriger. waaw mais parce que diriger bi xam nga combat lamb moo leen boole. TNT hmm. moo leen boole xëy na fay nañ lu jar bëre. Hmm. ñu dem bëre waaye moom it bi mu jëlee ka Tafa bi mu jëlee euh, Ama Baldé ak euh, mii waroon naa xam ne Ama Baldé mii kat su ma freiné ci sama carrière dina ma yàqal lu bari. Hmm. kon lan laa indi du ma gëm mystique bi rek teg ci sama kanam. lan laa dinaa boole mystique waaye dinaa ca boole nag jàng booy bi nan laa koy def ba yot ko ba jàpp ko. nan laay xalaatee loolu loolu benn xam la boo xam ne bii. da nga koy wuti. da nga koy wuti ba seet noo war a bëri moom. nan lay bëree ñu ne pied droit lay buté nan lay déplacer la déplacement latéral parce que mm. bi ko waa ji gëddee day def latéral côté dem côté gauche dem côté droit demaat côté gauche. Mm. demaat côté droit miime gauche mu ñëw nga dugg arrêt de mm. foofu tamit dana ubbi bunt bi foog nga cokkaas parce que cokkaas bi Ama Baldé di def du du cokkaasu dara. du cokkaasu dóor ko mu daanu xam nga lan la. cokkaasu wut bunt nu mu mën a demee. dëgg wu loxo ba tey pour jéem ko dóor ko ko gaañ déedéet. mais cokkaas yi muy cob di génn yëpp pour mm, mm. mu ubbee yi rek kon loolooy picc ngi ci kaw mais xel maa ngi am na mu ngoog ay ca ñu dem li muy làmbaas ci kaw yëpp du wut bunt la mm-hmm. jam na droite ñëw gauche gis nga ko mm-hmm. ba tey li ma la tafaatin bu ko defoon bëri bi doo gis mooy aj garde bi rek dox ci kawam rek diri ko Tapha Tine est-ce que jàppul ni Ama Baldé ñemewul a ñëw moo tax mu taxaw jodd euh, jegante ay tànkam taxaw di ko xaar rek di déglu Ama Baldé. waaw ba tey loolu mën naa nekk xam nga nit ki tamit loo ko xam-xam moo la gën a xam boppam. Mm-hmm, mm-hmm. nit loo ko xam-xam moo la gën a xam boppam. fam ne fi mu ne la nekk ci xolam. Mm-hmm. ak la mu mën a def moom rek moo ko mën a xalaat. waaye ñun mën nañoo njort ne lii la xalaat. yow nga xalaat ko jiili keneen xalaat ko man xalaat ko waaye la mu la la mu ne bu la waxul li laa naroon fii. mënoo koo xam. ay ca ñu dem. waaw yow. ba tey Tapha Tine jéemul dem te Tapha Tine gis nga mu ngi cokkaas cokkaas bi yëpp cokkaas wut bunt la. waaw jéem a yóotu fële parce que coup bi boo bëggee daal gis nga foog nga def un avancé pour jot ko mais dafay jam fële génnaat. nga xam ne kii day wut bunt. Ama Balde door na coup bu dal. waaw à tout moment Ama Balde mooy door waaw ah. moom moom la ay koom di dal. mais coup yi dal yooyu yëpp xam nga lu ko waral. Hmm. day wut bunt bu mag si tànk yi rek. parce hmm. xam na ne bëri bi song lay jeexal waaw ñu dem. ayca. waaw muy cokkaas droite bi rek. gis nga gis nga bu nga ca càppee gauche lam droite bi daal dem droite daw génn. Mhm. yooyu yëpp pour énervé loo ko rek maanaam pour énervé ko cokkaas énervé loo ko rek ba nu mu ko bëttee. rek ba tey loolu lay wut. mais euh, war na koo xaar muy dugg nu ko neexee. yoon ah, loolu kay ko ci commencement ba. Mhm. dama ne ci commencement ba ne la li mu waroon def dagg taxawaay bi du taxaw ba ne joon du wàcc ba ne suuf day dagg fraîcheur jambe yi. Mhm. aj gàdd bi aj gauche bi ci kanam. dégg nga wàcc droite bi. Hmm. rek dem droite bi mooy pare kii mooy yéeg. Hmm. bu bu ko wàññi dóore fu féeree mu fël daw yéeg. Hmm. agrégé gauche ak fële sur les jambes. waaw mooy yoon su ne bëxër ñett mu lal droite bi jàpp ko. ne ko ceex ñu bëri. waaw boobaa nag kenn ku ne def loo xam. waaw lool ah loolu mooy yoon bi. door na ñetti coup ba tey taxawaayu Tapha Tine bi baaxul xool taxawaay bi ba tey ni mu taxawee jonn ci mbër mu gàtt moo xam ne xam nga ni wóor na ne kii say yàlla jëm xool ni nga taxawee jon Ama Baldé wàcc gën a jege bopp bi daanaka jege na biiru Tapha Tine voilà loolu tax nag lépp nag pour cookaas ko pour jéet xool mu buntu bu mu guddugg rek hmm. waaw ay ca ñu dem ñu dem gis nga gis nga cookaasaat na waaw ba te Tapha Tine jéemul dara hmm. parce que Tapha Tine tam dinaa la wax leen ci xeexam hmm. kor la gën a aay jam direct gauche moom xeex koy léewtoo di jam direct dem kor la corps la gauche ci corps la waaw corps la droite bi hmm. tëggal uppercut gos kooku la ay hmm. waaw kooku loolu bëreem la hmm. kooku moom la boobu xeex la gën a mën waaw ku ku mu ci corps moom mën na la wàcce waaw gis nga ah, maa gis nga voilà gis nga dugub bi fii nag très bien ça teel fii gis nga lii moom ci ba artefacte ni moo doon def gis nga loxoom bii day puus rein bi ràcc ci tànk bii wàcc dënnam bi mu teg ko ci digg ginnaaw kii loolu mooy rasu day puus waaw koy puus génne daal rasu. Mhm. rasu bii la waroon def na fii la waroon rasu parce que xool ni ko waa ji ne coppet ni ko Tapha Tine ni ko euh, Ama Baldé duggee. mais gis nga loxoom bii da waroon tekki rein bi puus ko muy puus nag moog tànk bi ñooy ànd. du laal tànk bi du laal tànk ci kanam. bii puus dafa Ama Baldé. tànk ah. bi puus ci ginnaaw reculé. gis nga nii mu ko téye nii. Mhm. loxoom bi lay tekki ndigg li ni mu ko crochet nii. loxo bi lay tekki ndigg fii ci rein bi. Mhm. ci rein bi. laa ci tànk bële. comme loolu leçon yooyu ñu bëgg a def noonu dinaa la ko wan hmm. bu fekkoon dañoo dem tey am tàpp nii dinaa la wan ne nii la waroon def hmm. parce am na ci loo xam ne boo koy wax ku mënta bëre du a dégg du la a xam li ngay wax hmm. du mën a comprendre li tey ji siggi bi dafa ëpp laa ngi ci biiram boppam mais loxo bi fii la ko waroon tekki royen bi pousse ko ràcc tànk bii du laal tànk bii mu jàpp ko tànk da koy këdd mu wàcc tànk bi du jóg da koy këdd mu wàcc mu ràcc tànk bii daal di pousse rein bi daal dugal loxoom turaat bi ci biir daal koy jàpp nag ñu bëri. loolu moo doon yoon loolu bu ko defoon dina rëcc muy benn ñaareel ba gis nga koo gis ñu song la nii. ni mu ko songee nii. waxoon naa la sànq suñu leçon yi ne la dafa bari mu bari na ci mbër. ñoo xam ne bu ñu tegee gauche moom lañu mën a xeexe mais mënuñu cee bëre. yaa ngi fàttaliku loolu. nañ cee xeex mais mënuñu cee bëre. ñii bu ñu tegee moom lañu mën a xeexe moom la ñu mën a bëre. ñii dañuy teg droite mën cee bëre mais duñ ci mën a xeex. bari na ci mbër am na ay benn benn nag. yoo ci xam ne yi dañuy teg droite bi mën cee xeex mën cee bëri comme genre Moustapha Guèye dëgg la loolu daf ci am man mi amoon naa ko parce que man gauche bi laay teg moom laay xeexame moom laay bëree hmm. lool nag ay Robert Diouf noonu la meloon hmm. loolu nag ay exceptionnel la ci làmb hmm. du ñëpp ko mën dégg li ma la mais am na ci ñoo xam ne toujours la plupart ci mbër coté bi ñuy xeexee rek bi ñuy xeexe moom la ñuy bëree ah, ah, ah, bi bi ñuy xeexe mënuñu ko bëree moo tax bu ñu la songee fi nga mënta bëree bu ñu la songee nga xool fi ngay tëdd parce song bi nga ko song nii su defoon la moo def wala ko cee daan wala ko cee daan day crochet mbagg mi rek ràcc wala mu teg loxoom ci rein bi ràcc rek ràcc tànk bi rek wàcc dënn bi ci digg gannaaw gi mm-hmm. bu ñu amee tàpp bis naa la ko mos a wan. incha la ko tax wan la. ñu bëri ci tàpp ma wan la ni koy doxee ñu koy doxalee. Hmm. nga xam ne bu doon ni kii nii la waroon def. Hmm. nga xam ne ñu ciy jàng bu ñu xoolee xam ne boo juumee ba ñu egsi la foofu. Hmm. nii ngay def pour rëcc. dëgg parce que ba da cee bokk. bëri rëcc da cee bokk dafa am foo xam ne boo juumee ba ñu àgg la comme nii. li la ciy génne mooy nga am xelum bëri rëcc. fii ne dóor waru ko dara waru ko xam nga loolu téye Ama Baldé ba pare éliminer loxo ba la jéem a rëcc pousse bi teg fii ci loxo bi ci rein bi daal raa tànk bi wàcc dënnam daal di calculer loxo bële nag loxo gauche ba libre mhm. waaw loolu rek moo doon bëri bi. Mhm. parce que fii tam bu fekkoon ne tam euh, Tapha Tine bërikatu tànk gauche la. Mhm. yaa yaa ngi dégg dégg nga mën naa crochet mbagg bi daal di dugal xarata tànkam fii daal di koy tëgg mboot ñu ànd jóg. Tapha Tine ci boppam. waaw am na fi mboot mu garaaw fii. waaye nag mboot moomu day fekk mu crochet mbagg mi tànkam bi dugg ci biir xarante tànk kii boor ko mu ñëw kooku bis bu ñu amee tapis naa la ko wan dañuy wan loolu tamit xam-xam la boo xam ne bi mm-hmm. loolu tam mënin lay doon nag mënin lay doon mooy ushimata wala aray goshi kooku dafa am ci mooy bi ngay làq tànk bi ci ginnaaw fi wala bi ngay dugal ci xarante tànk mm-hmm. mooy ñaar la ñaar judo yokaay ñoo koy wax mata ak aray goshi bii ci xarante tànk yi la bii fii nga koy teg mm-hmm. mooy lare ñaar lare mbootu lare ak benn bi nga xam ne fii nga koy dugal moo tax fii bu mu ko jàppee bu xamul ni mu rëccee day xool fu muy tëdd ay ca ñu gis nga ko voilà bëri bi day daal di jeex ñu daal di koy wañ mais nag fii naa la fi wax lenn. Hmm. lii defar na tafaatin. defet bi hmm, waaw. ci xam nga très bien ça ci lii. xam nga tax mu defar ko. Hmm. mbër su naree ub làmb defet bu mel nii moo koy yee. bu fekkee daa ragaloon waa ji. dina ko xam bu fekkee condition moo de xam na dina ko xam. bu fekkee. Ah, heure la ci biir bëri jàng lu mu war a jàng dina ko jàngaat. Hmm. bu fekkee préparation ba desoon dina ko jàngaat kon dina ko yee lu bari bare bare ci làmbam ba nga xam ne bu si dellusiwaatee ci combat yi di ñëw di nga xam ne Tapha Tine nga xamoon du mii. Hmm. te gis nga combat bi mu dajee gis nga ko. Hmm. xam nga demeewul noonu. après Zoss la ci teg gis nga ni mu demee. moo tax combat yii di ñëw koo ci am am nga combat bu sérieux. maanaam parce que combat bi yee na ko ci lu bare bari bari bare. waaw defar na ko. waaw parce que dina ak mbërëm dafa war a bokk ci ñi war a téye làmb ji mm. ceene ko ci parce que ci taay bi may na ko gabar bi may na ko gannaaw gi may na ko kon tey am war naa mën a defaraat boppam nag ci defet bu réy bii mu am mm. waaw te moo tax it boo yi mu jot a tegagun làmb ji tey waaye bu di nga bu gënee defaru yàlla ko ci ndox gi lépp di ko déggi mm. waaye nag foog mu yokkaat xam-xamam bu baax a baax nag waaw foog mu yokkaat daal yokkaat xam-xamam ci taxawaay bi ci waaw parce que njool mu toll Tapha di jiital pied gauche su fekkoon gauche bi neex na muy boole riñaan day daan ba tas dagg du dagg taxaw jub nii mais fu léew dagg taxawaay léew foo ne léew mu jam la gauche ñëw ak foo ñëw mu jëm gauche ñëw ak droite boo dee si mu daw buub li muy daan mooy ëpp li muy daanu. père nga gis combat bi. Euh, lu mel ni Tapha mhm. euh, bi muy bëreeg Elton. Mhm. def na lu mel noonu. Mhm. xeex na xeex bu jaar yoon ba maa ngi lay seetaan jour boobu. yaa ngi toog ak sama papa Asbekaay ñu koy ñaanal gudd fan ak wér. nga naan ko. Tapha Tine mu ngi ci xeex bu jaar yoon day dóor déplacé wu dóor déplacé wu. def na ko ci digganteem ak Bombardier. Mm-hmm. diggante ak Ama Baldé mu ñëwaat gisuñu loolu ci moom. Mm-hmm. lan la sóoraale bi la. waaw ah, de sóoraale bi du ñu niroo parce que ñaari adversaires yi bokkuñu. Mm-hmm. Bombardier ak Ama Baldé bokkuñu. déedéet ah, Bombardier ak Elton bokkuñu. déedéet kenn ku ne adversaire bu nekk da ngay bëri ak moom. parce que ñële ay ay ay mastodon lañ comme moom. ay géant lañu. mais dafa dafa daw jaxasoo bi nag. mais keroog ay la woon. parce que nee naa la mbër bu dul day des. dëgg la mais kenn dóor na ay tan dóor yoo xam ne bu du topp xeex bi hmm. bi mu dóoree ñaari dóor dem faju ju dellusiwaat bu ñëwee day miine xeex mu defee ne xeex mu fanaan yi ma ne mbër muy riñaan hmm. toujours wax la defe song saa yoo ma ne toujours nga daan ko la man hmm. mais keroog contre Bombardier riñaan mu gaaw amoon na fa dégg kii tamit ko ne xam nga xeex bi favorisé ko ba xeex bi bari na ba deret génn su ma dellusee dootuma xeex nag danaa yaakaar nga dafay korek mu doo buub la song moomu ne ko waaw parce que mbër tamit bu fekkee sa mbër bëgg nga mu ko mu assuré. Hmm. bu ragal jaxasoo parce que bëre jaxasoo koy jeexal. Hmm, hmm, bëre bu fekkee da ngay dóor di génn rek dóor di génn. say match nil mooy ëpp say victoire. damay dégg ñu naan daan mbër moo xamul nu mu mëneewul songo koy maye. Ah, kon kay léegi tari nga saar ba <laughs> léegi kay jiri jiri yow kay tari nga saar ba <laughs> jeex ah déedéet dama ne yow tam loolu koy xam nga ne <laughs> xam-xam la koo xamul ma ne xam nga waxoon naa la fii ñetti bëri ko mun daan ko la man nga ne ma yan la ma ñaan ak téq ak mbas taa yoo ko mën su nga daan ko la mën song ci la bokk bu dee mën a riñaan xaw xool xool tafaatin taba tafaatin garde bi ko yàlla jox nii ak taay bi ko yàlla jox su amee dagg taxawaay bi wàcc na am arrêt de gauche bu gaaw bu fekkee pied droit am arrêt de droite bu baax bu gaaw ak crochet gauche boo siggee mu daw buub loolu am jàng la da nga koy jàng bu fekkee ne pied gauche ngay jiital léew léew dagg taxawaay bi dégg nga jam sa gauche mu ne bëxat yéen nga daw nga daw euh, sëg foo dawee gauche bi bu droite bi siggee foog waa teen hmm. nga daw buub doo suuf dem si yoon doo sonn sax doo sonn sax loolu boo ko ci jàngee ci bëri sa hmm. bëri dem sala day day yomb lépp day yomb waaye su kee xeex rek nga nar hmm. dóoral ma dóor dóor ma dóor yàgg ak say nii mooy ëppate da ngay gaañ te doo daan looloo ko def ñaari combat yooyu dafa waroon daan moo Elton dafa waroon daan bëri dafa waroon daan parce que kenn dominé leen domination boo xam ne bi song rek ko doon jeexal bëri du ñàkk entraîneur Tapha Tine ñu ngi seetaan. waaw dégg ngeen leçon bi nga xamante ah. ne Pierre joxe na ko ci ki nga xamante ne mooy Tapha ci digganteem moom ak Ama Balde. Mhm. ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi seetaan wasaare làmb Pierre di la jaajëfal bu baax a baax. waaw parce que Tapha Tine moomu tey jii. Mm. am na benn xale bu muy àndam bay at maa ko yoroon. moo fàllu ngoom ñoom ñëpp maa la yor écrit Bawol. Mm. ñoom sama jaar nañ sama loxo. Mm. ñoom lu ma wax duñ ci koy dañ koy ko weddi mukk ci parce que parce que lu lu ma la wax ci bëre am na fu ma ko teg. dëgg la du question damay rëy làmmiñ du question damay jaay xam-xam du question damay wane ne maa fépp xam-xam déedéet ñu ma ëpp xam-xam rek a fi waaye bëri lu ma la ci wax jaay ji li hmm. fasal jàllu muus la booy waxee rek gis. père kay làmb moom wax dëgg. waaw ku ci wax loo lépp loo wax ci làmb ku ci àndul rek xëy na daa daa daa far beneen mbër nga xamante ne. waaw euh, wax waxoo lu jublu ci moom mais làmb moom lépp loo ci wax. waa ji dama ne jàllu muus la laa wax hmm. sama wax lu ma la waxee waa xel da ngay gis ku ma ne mbër mii bàyyi lii bu bàyyi dañ ko ciy daan doo ci des li nga sama boy yi nga xam ne sax xam-xam ñoo fa ne hmm. su amee combat bu ma ci demul seen combat bu ma ñëwee ku ma ci téléphoné combat bi nu mujjee la may wax ah père li ma tere woon la def de diw di daan nañ ko ma ne ko lu ko daan mu ne ah la nga ñu tere woon du ma ne xamoon naa ko dama naa la xam wax tere woon naa la ko hmm. bëri lu ma la tere bàyyi lu ma la digal defal hmm. maa billaahi wallaahi taala mbooloo laa joro ak yàlla bëgg dama la bëri lu ma la sant defal lu ma la tere bàyyil dëgg la père soo ko defoo rek doo ci doo ci am defet man maa la wax nii parce que gis nga mbir mi dafa am yoon mhm. gis nga yoon bi boo ci jaaree mu ngi mel ni kuy tari faatiya rek nit faatiya ba Mohamed andi woon mhm. ca jamonoom ba nëgëni moo fi ne mhm. chinois bi noonu la koy tere njaago bi ak séeréer bi ak ñëpp ñoo bokk nañu tari faatiya dégg nga li wax dara du ci deñ waaye boo ñëwee bëgg koo jàdd rek ah jàdd nga yoon mais tax bëri dafa am yoon waaye boole bu defee ne gudd naa rek a jekk naa rek wala ba daantoo rek wala takk naa it xaaw yu takk takk ba fees del dégg nga xëy na loolu sunu aada la rek mm. waaye xam-xam bi mooy baas bi dëgg la waaw xam mm. mooy base mm. jërëjëf jërëjëf mbokk yi euh, Père kon ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax waaw di kontaan ci taxaw yow rek parce que tamit yaa ngi naan <laughs> maa ngi lay quoi yow tamit neex nga parce que question yi moom xam nga ki ngay wax muy tontu dafay fekk nga di ko poser question yu pertinente question yu am njëriñ loolu mooy tax kii kat bi mën a wax. Mhm. parce que boo laaj question yu pertinente. Mhm. da may tëj du xam lu may wax. dëgg la père. waaw kon nag sant yàlla gërëm. Mhm. di gërëm nag waa États-Unis yëpp nag ku mel ni ñoom Issa Diène. samay booy lañu foofu lañu di safoo. Wassare. ñoom bi jël xale yooyu yëpp France moom itam ku bëgg émission bi la. parce que sama waaye la ñoo dëkkoon fi Grand Dakar mais foofu la léegi. mais moom copain mi dañuy toog di waxtaan ci làmb ñoom rek la déglu. foo waxee ñoom sama booy yow rek la déglu. dañuy ci làmb sax ju foofu la ñuy déglu ji kon nag yàlla na ma yàlla dimbali dimbali leen hmm. ba ëllëg si biir ma bañ a wax tojaange hmm. ma war a def tojaange woo xam ne ñaan oh le père Birahim wax yàlla nañ yàlla musal ci accident làmmiñ amiin amiin di ñaanal wasaare nag yàlla na hmm. euh, fukki siit yëpp. Hmm. yàlla na ci kaw. amiin bi barakatu rasulilah. amiin amiin ànd ak ñi laay ñu kër gi. yàlla def fi yàlla def fi jàmm. amiin amiin ñëpp yàlla boole suñuy xool ñu ànd nekk benn. Hmm. di di xàcceendoo di dóorandoo. dëgg la père jërëjëf maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. jërëjëf kon tey émission bi dañ koy may ñetti nit. nga Biram Ndaw Ndoy. Biram Ndaw Ndoy waaw ak Mbodj. ak Mbodj Mbodj Mbodj sa copain moom it sa waay la waaw Sonatel waaw ak ñoom euh, kii nu mu tëddi waaw bi jël ñooñu tamit samay waay waaw ak les ak les sages nag les sages de la lutte sénégalaise ah. Moussa Gueye mooy président bi man maay trésorier waaw Pape hmm. Konaté mooy coordinateur bi ñoom Italie la ñu nekk dëgg la ñee nga Espagne ñee nga Italie ñee nga hmm. Amérique dëgg la ak ñoom Malal Ndiaye ñoom xale yooyu yëpp ñoom Serigne kan hmm. ñoom ñooñu yëpp te ay ancien ay bërëkkat la ñu woon fii ñu nga Europe léegi ñu formé benn association rek tuddee ko les sages Moustapha Gueye mooy président bi man hmm. maay trésorier ma di leen nuyu ñeen ñoom yëpp di leen ñaanal jàmm hmm. waaw ñooñu bëgg naa nga di ci bàyyi xel ci ñoom incha allah rabbi dinaa dem seeti association les sages euh, nuyu papa Moustapha Gueye mi nekk ci bi di leen jaajëfal képp ku fa nekk rek mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci seen njàngat lamb euh, hmm. Baye Djily la ak Père Birahim di leen jaajëfal bu baax a baax a ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat lamb jërëjëf Père jërëjëf andi loxo bi. laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne boo jaar fafa laa mëne dama mën ci mën ca mën ci yi boor ak ci yëley nu roowu mag ñoom tuuna rëy ma waa na roy ma maa ko baaxi ñii ma yor si jeeg gën